ànd mbootaay jigéen di ak euh, sept gaal ñu ful ko ba muy quatorze gaal fi mu toll nii gaal goo làmb mu ngi ci un million mbala deux millions ñu boole ko di ko commerce di ko liggéeye di ca teg suñu ñaar fukk ak suñu juróom fukk ba tey jii naal wax dëgg yàlla macha allah moo tax tey ñu di ko bàkkaat pour mu jaar fi mu jaaran dolli nuy gaal ndax ku ne jigéen ne développement. di kontaan nag di rafetlu liggéeyu soxna maam xari ndax soxna maam yi mën naa ne avant élection rek mën naa ne financé moom mën na ko ci jigéen ñi ndax ñi am nañ ay 500000 dem financé waat seen waa koñ am na ñoo xam ne tey financement yi ñu am kër soxna maam xari lañ ko jëmee jëlee dem financé waat seen i mbootaay ñii ay 200000 ñii ay 300000 nga xam ne romb na quinze millions avant campagne bi élection yi jàllee ku ne gis na liggéey bi soxna maam xari def ci élection bi mu paasee léegi ba bërki démb ci mujj. bi ñu jógee ci élection yi nag dafa baaxoo ne am na ñoo xam ne dañuy wax politiciens yi su élection jub see rek la ñuy soxla nit ñi loolu nag dafa dalul soxna maam Xari Mbàkke dalul aussi ak ñi mu àndal ndax fii may waxeek ak yéen élection locale lañ doon jub te décembre la te ñëpp dégg nañ ne élection yooyu reporté nañ ko mais teewul soxna maam Xari Mbàkke daf ne. damay continuer liggéey bi nga xam ne moom laay liggéeyal président Macky Sall si njabootu politique am bi nga xam ne si ni moom la am fii ci dëkk bi na ko doon defee bi ma soxlaa seeni carte pour ñu voter président Macky Sall noonu laa koy defee même su fekkee ne dara xewul même su fekkee ne président jongantewul même su fekkee ne ay élection amul loolu moo waral gaal yi nga xam ne si ne moom initiative bi moo ko xalaat muy gaal yi nga xam ne mbootaayu jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci gox yu fasantikoo yi nekk ci biir Touba jigéen ñi kenn ku ne xam ne ne ay jàmbaar lañ ndax am na suma benn xarit bu ne jabaram daf ne ko baal may joxe dépense bi ngay joxe yokku bi kon yokk dafa metti te jigéen ñëpp dañuy jàppale seen jëkkër ci yokku dépense nekk ay jàmbaar soxna ma am xarit ne man femme développement la même su fekkee damay politique mu am initiative def

yaakaar naa am na ci jigéen ñoo xam ne su ma sœur coro léegi wax na ko nee na ñoom cent mille francs rek lañ leen jotoon a jox te tey jii bi ñu évaluer am nañ deux millions plus soxna Fat Diop jéemu la ngi nii jiite jigéen ñi ànd ak mbootaayu jigéen yii ñuy liggéey moom yaakaar naa liñ ko joxoon ci ay gaal juróomi gaal la xaw ma juróom-ñaari gaal mais tey budget bu ñu la ko waxee mënoo koo gëm te jigéen ñaa ngi nii di nekk ay jàmbaar soxna maam xari mbakke nag loolu moo taxoon mu ne tey nañu daje renouveler waat suñu engagement suñu digganteeg ñi nga xam ne njabootu président lañ surtout ñu ay jigéen yoo xam ne si ne ay jàmbaar lañu loolu moo waral tey ndaje mi ñuy gën a remercier suñu président Macky Sall si taxawaayam di remercier aussi tamit initiative yi nga xam ne am na ko ci dëkk bi ak taxawaay bi nga xam ne si ne taxaw na ko ci Sénégal tey ba Sénégal ñu naw ko si àdduna bi yépp ndax ñun ñi nga xam ne si ne ay ndaw lañ andon ak mom 2008 fekke bi mi laaj réew mi fi réew mi tolloon ku wax xamna na ne Sénégal amna na développement ñun nak ñu ngi koy ñaanal di sof suñu kaddu ci kaddu Serigne muntaka mi nga xam mo taxaw aduna bépp diko ko dégg mu ne président Macky Sall Serigne Touba la la bolel ñun nak kuñ booleeg Serigne Touba doñu fi bayyi dañuy top sa ginnaw and ak yow ndax ñun Serigne Touba rek lañ xam mom la ñaan du nangu Macky président Macky Sall ànd ak Serigne tubaa di dem ñun ñu des ginnaaw gannaaw ba nag xalif général des Mourides moo ne ko Serigne Touba laa la booleel ñun président Macky Sall bu gestoo dinañu gis si ginnaaw ndax ñun ko ànd ak Serigne Touba ñu ànd ak yow. kon nag loolu foofu la soxna maam Xari Mbàkke nekk ndax soxna maam Xari Mbàkke kenn moo dox diggante moom ak Serigne Touba muy sëñ Moutada kon bu sëñ Mountakha waxee ne boole naa président Macky Sall ak Serigne soxna maam xari Mbàkke wax jooju dugg na ci biir kon nag ñun ak njabootam ñun tamit ñi ngi ci biir di wax na yéen jigéen ñi na seen xel dal soxna maam xari Mbàkke dana leen jàppale dana leen jàppale ci saayir dana leen jàppale ci baatin fi may jeexale rek mënu ma ko ñàkk wax muy assez politique il faut ma wax si Sonko ndax mënul ñàkk occasion bi moo ma ko may liggéey moo ëpp solo ay wax maa ngi laaj Sonko mii laaj réew mi lan la mës a jiite ci réew mi lan lan musul n'est sax conseil municipal mais est-ce que Sénégal ñun tollu nañ ne né kenn expérience politique Une expérience d'État ñuy jël suñu réew di la ko jox non non non non Sonko na xamné président Macky Sall du Moromam. ñun ñi ñoy ay morts. xam nañ limi wax wax ju bari nak mi ngi nga ba di ab kenn sa preuve. léegi nag suñu ab Ablaye ñaan gis nañ ko mu taxaw ànd ak Sonko di saboté béréb ba nga xam ne fa la rasulillahi juddoo sallallahu alayhi wa sallam naan ay bandi lañ damay jaar ci moo bi moo ko wax man damaa nettali rek naan waa Màkka ay bandi lañ moo ko wax léegi nag na rectifier loolu moom Ablaye Niane ndax nee na ci ñun la bokk Touba la dëkk ñun nag du ñu ànd ak koo xam ne si fa bërëb ba yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa ña fa nekk ñooñu danga leen di xas kon nag ñu nga wax Ablaye mu jégalu ci kanam comité musulman bi yëpp ak murid yëpp loolu laa amoon lu ma koy wax di leen sant di leen gërëm di wax ne Sonko na xam ne gone la gone nag day yem ci kuddu ñu rof ko ci gayam